leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko Sud mi des waat ci visite bi nga xamante ni président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko ci douane France yéenekaay bi ne presque amul benn changement nag ci rupture bi nga xamante ne nii ñoom waa Pastef yi ñoo ko doon xëcc di ko woote yéenekaay bi ne booy xool Jean Biagui di enseignant chercheur mook Bakary Mané di journaliste spécialiste gouvernement bu bees bii di ko jëfandikoo ci suñu diggante ak waa France continuité la ñu gën a gis que rupture léegi ko yéene kay ne en tout cas moom mu ngay xupaatee moo ngay avertir na commerçant yi gannaaw ba mu jëlee ay mesures jëmale ko ci dund gu cher gi nga xamante ni à partir de tey altine ji prix yi nga xamante ni ceeb ak jiw ba ci ciment bii daf ko doon jar lépp la ñu mujjee wàññi état bu Sénégal dem bay joxe numéro sax boo xam ne bépp commerçant bu wul yoon ak mesures yi état bu gi jël askan bi mën nañ koo boole te ñoom mesure yi ni mel nag yéenekaay bi xamal nañu ne dafa mel ni mujjul indi solution waaye problème la mujjee indi ndax producteuru farin yii nag fi mu toll nii dañoo mer nee nañu duñu liggéey laa wax di perte état bu Sénégal boolewu leen nag ci dialogue bi li gën a wuur nag jamono jii moo ñu togg ak ñoom autorité yi waxtaan ak ñoom ba ñu déggu ci ay kàddu lii moo gën a sedd waaye bu ñu sukkandikoo nag ba jamono jii ca mesure yi état bu Sénégal gi jël ñoom producteuru farin yi nag arrangé wu leen donte tey jii nag la état bu Sénégal sàkku ne amul baale na ñëpp respecté laa wax mesure yi jamono jooju moom ministre des finances ak microfinance économie sociale ak solidaire teg ci bi lu toll ak un milliard de francs pour jébbal ko lu toll ak juróom fukki organisation ñeent nekk ca doonu Bambey financé leen ngir ñu daal liggéey Aliou Diollo ni xam ne ci biir yéenekaay bi ne lii nag ay leble la yu ñuy defal nag askan bii ngir ñu mën a liggéey waaye amul kenn koo xamante ni suñ la lebalee ba noppi dinañ la bàyyi nga ñàkk fay lañu producteuru farine yi ñoom fi mu nii nag bëgg a xajamal mbir yi ndax ñu ngi xam ne ci biir yéene kaayam bi waxtaanu teg ñun xoomal lan waaye mbuuru bi moom mënta wàññeeku ñoom producteurs yi xam ne ne état bu Sénégal fi mu toll nii laa la wax financement bi ci moo des sa boo meetul ñoom dañuy perte duñu engagé nag réduction boo xamante ni buñ ko defee ba noppi dañuy perte daanu ba laa la wax ci farine bi tey nag ci altine gi yéene kaay bi xamal nañu ne soo moytul ñoom producteur yooyu dañuy dugg ci grève kenn dootu fi produit laa la wax farine ba ñuy wax sax naan mburu dafay am jàkkaarloo gi jàkkaarloo nguur gi yéenekaay bi xamal nañu ne soo moytul mesure yu état bu gi jël dana am yu ci sooxe en tout cas ñoom nguur gi saagu faran gi ñoom nee nañu gàlloo nañu lu toll 2645 francs a ngi ca biir fa état bu Sénégal gi nag di mujjee jéeg producteurs yi mooy toog rek toog rek ngir mën a régler problème bi lu ko mooy mesure yi du mujjee fenn ndax producteur farine yi nag soobu nañ ci grève lii quotidien def taxaw seetlu ci dem ak président de la république Bassirou Diomaye Faye ca ni la président Bassirou Diomaye Faye di def diggante Sénégal ak réewu France benn jafe-jafe amu fi booy xool sax Sénégal fi mu toll nii dafa gën a jege France ndax lu ëpp 15 milliards de francs CFA réewu France dina ko financé mu ñeel wàllum production te Sénégal tamit fi mu toll nii dugal nañ ko loolu tamit jëm ci wàllu production de vaccin naka noonu tamit institut Pasteur bi nekk fii ci Dakar na partenariat bu dëgër bu mu am ak benn institut française boo xamante ne ni mu ngi la la wax amu ci mu président de la république bii nag dëggal na ko Le Quotidien yéeni kaay ne Sénégal kay ci problème yi mu nekk dinañu ko xam bu premier ministre Ousmane Sonko demee ci assemblée nationale hypothèse yi nga xamante ni moo fas yéene jàkkaarloog président Sonko difficulté yeeg possibilité yi lépp yéeni kaay bi deesuwaat na ci dem sax ba ñuy xamal ni am na ci député yoo xamante ni ñoo ngi koy waajal lépp lu ñu bëgg def bu fekkee ne nguur gi def leen koy tere boo moytuwul nag dinañu saisir laa la wax conseil constitutionnel aji mergaan kàndute moom jàpp na ne Ousmane moom tôt ou tard dina dem ci assemblée nationale loolu obligation la nekk nekkul loo xamante ni dafa laaj ay négociation l'observateur ne négociation kay fi mu nekk jamono ji moo di ci état bu Sénégal gii laa la wax ak commerçant yi mesure yu président Bassirou Diomaye Faye mi jël wàññi dund yi defarkatu farine yi fi mu toll ñoom gisuñ ci seen bopp dañoo jublu nag fi mu toll ci grève ne dootuñu defati production feeg waxtaan amul laa la wax seen diggante nguur gi stock bi nga xamante ni boulanger yi defoon nañ ko mënul bi ci ñetti fan a indi ay jafe-jafe laa i muy anticiper nawet bi nga xamante ni dugg nañ ci ba noppi bu ñuy xool jamono ji laa la wax lu ëpp 47 milliards perte gum ko lépp ngir anticiper nawet bi armée nationale bi ñu jël tamit bëgg koo dugal nag ci xeexu mbënn mi yéenekaay bi yaatal na ko ne bu amee génn jaaxle-jaaxle goo xamante ni état bi jaaxle na ko mi ngi nawet bi nga xamante ni yegg seegul lu ñu mën nag ñoo koy def ngir inondation bañ a am lépp muy actu ne inondation kay fi ma du ci langue politique gi Ba mi a jël responsabilité ba léegi si jëlu ko génn ñu jëm nag dana gën a leeral position ngir mën a dëggal boppam nag ci langue politique gi yéenekaay bi ne bu amee ñenn ñoo xam ne ñooy dooleel Amadou Ba weesul Abdou Latif Coulibaly Omar Sow Cheikh Omar Anne ak Cheikh Omar Sy ñi ñoo nekk ci ginnaaw Amadou Ba bëgg ko jàppale ci yoon wu bees bi nga xamante ni la fas yéenee jël du mooyu président Macky Sall ba noppi défier nag APR ndax Amadou Ba mi dana def liggéeyam comme ni mu fa waree en tout a ñëwaat fii ci yépp nag mu yoon layoo ko moom mi métro di xam ne ci biir yéenekaay bi ne mësul contre loi waaye nag ñi fi rey ay nit yàq fi ay liggéeyu jàmbur ñooñu dañoo war a dem wuy ji yoon enquête yéenekaay moom def taxaw seetlu ci journaliste yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci yi toppandoo la wala ñoom ci tendance dëgg nga tàmbalee ko ci Racine Talla nga xam ne ñëpp xamoon nañ ko en tant que bu APR yaa xam mbay moom waxatuñ ko woon Ahmed yi naka noonu Bougane Gueye Dany ñëpp a xam posture am ci wàllu politique yéenekaay bi yemu ca de ndaxte mu ngi xamal ne Souleymane Jules Diop léegi politicien la Yoro Dia léegi politicien la Sadikh Top léegi politicien la Mamadou Bamba Ndiaye léegi politicien la lan la mën a impact nag seen rôle en tant que journaliste ñëpp a ciy teg seen bët Vox Populi ne docteur Sénégal yi kay li ñu teg seen bët bëtiital leen moo di mbas mi di Covid 19 nga xam ne yegg siwaat na ci réew mi dañu ko indi moo dañu demoon ca pèlerinage ba yéenekaay bi xamal nañu ne docteur yi seetlu nañ ne téeméer boo jël ñaar fukk yi jàpp juróom-benn fukk yi fi mu toll nii mbas mi dugg na leen ñu indaale ko ci réew mi yéenekaay bi dañu xamal ni Charles Bernard Sagna di médecin chef ci service contrôle sanitaire ba nekk ci AIBD nee na ministre bi lépp lu mu mën rek moo ngi koy def ñu ngi assurer population bii ne mbas mi dugg na yaatu yéenekaay bi def taxaw seetlu ci mbas mi nga xam ne dugg na ci réew mi ne sénégalais yépp ñib seeguñ ci réew mi ne waaye ñu fi ñëwagum dong dafa ci ñoom ñoo xam ne gis nañu ne mbas mi di covid mu ci ñoom donte gëj na ci réew mi waaye nombre fi mu toll nii ngi gën a ëpp lii boo moytul état Sénégal gi jël ci mesure nga interdire nganale yi nga xamante ni day permettre ñi demoon màkka di nekk en contact direct nag ak population bi ndax loolu su boobaa mën na gën a yaatal nag mbas mi mën na la boo moytu laa la wax nganale ñu interdire ko ren ji ndax liy commencé xeeñ neexul te liy raam ci ñag bi la jëm fu amee place nag du gaaw a at yal na ko fi yàlla gaaw yemale yal na ko fi yàlla gaaw yemale bu koy continuer di abonné ko bàyyi xel seen seen YouTube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm suba ak jàmm incha allah